bi leen jëloon euh, contractuellement euh, euh, pour liggéey ak ñoom pour jàppale force de l'ordre yi par rapport à l'insécurité au Sénégal finalement bon ben on se rend bien compte que ni gars yi ils doivent partir nan lañ leen war a def est-ce que ils ont bien réfléchi pour am une idée par rapport à l'issue de cette situation parce que ce sont des situations assez difficiles puisque ay nit ñoo xam ne lañu wax dëgg yàlla ñi ngi fi depuis un certain nombre d'années di liggéey aux côtés des forces de l'ordre est-ce que ont su anticiper par rapport ak euh, lan la ñu a def après lii parce que xamoon nañu contrat day jeex lan la ñu nar a def il se trouve que am na ñoo xam ne ils ont moins de 35 ans ça aurait été en mon sens une bonne je ne sais pas j'espère qu'ils l'ont fait j'en sais rien mais c'est que fii bon seen politique gars yi du ñu wax dañuy xaar ba affaire ne këtt ne jonn eh ben ñu ne ca euh, léegi jéem a réfléchir sur ay solution alors que xamoon nañ ni mbir mi dina am puisque seen contrat yi dafa naroon jeex te dañ leen waroon libérer définitivement euh, contractuellement par rapport à l'État donc dina poser un problème qu'est-ce qu'on va faire avec ces ASP là est-ce que ñoom sóoraale nañ ni nit ñooñu euh, après dañuy dellu au chômage ay nit yoo xam ne la ay bon ils auraient pu penser éventuellement def benn réfléchir sur personnalité ASP bu nekk xool nan la ñuy def pour jëm leen jox li continuer liggéey leen ñii ñu def leen ay alkaati puisqu'ils ont travaillé pendant un certain nombre de temps pardon qu'on a toujours besoin de ça ak insécurité bi nga xamante ni moo nekk ci réew mi jamono ji le mhm. temps est mal choisi mhm. et puis xaali ñoom mi nga xamante ni moo dirigé agence bi boo déggoon sax moom Euh, kaddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko nee na que euh, pour gën a xeex sax insécurité boobu moo taxoon ñu jël leen mettre leen en place et puis jamono ji nga xamante ni meurtre yi bëri na mm-hmm. rey yi bëri na agression yi bëri na ñu jël leen ne leen dañ leen di mettre au chômage yokk taux de chômage bi mm-hmm. yokk insécurité bi nga xamante ni moo nekk ci réew bi je pense que mais ñi dem c'est la première génération ah déjà du du ñoom ñëpp ah, première génération bi njëkk a intégré ñooy dem et puis autre chose aussi fu ma bëgg a intervenir mooy mm-hmm. xam nga AFP déjà biñ leen fiy teg nee nañ agence xaw ma sécurité de proximité santé c'était pour ñuy nekk ci quartier yi mhm. mais qu'on se dise la vérité loolu gisuñu ko au mhm. contraire ci tali yi la ñuy nekk ak policiers yi mhm. di di di di di di di koñaatu xaalisu gars yi téeméer yeex ñaar ñaar lañ leen fi tegee woon nekkuñu loolu la ñu gis loolu loolu la ñu gis à la fin et instant bi nga xamante ni je pense meurtre yi bëri na lool sax si lañ waroon gën a sentir seen liggéey ci biir quartier yi mais ci tali bi moom wax dëgg fa ni yàlla foofu taxu woon ñu leen fiy teg xam nga man xam nga euh, dëgg man man boog sama xalaat. Mhm. man sama xalaat lay jox. Mhm. mooy que. Mhm. ASP yi amuñu seen raison d'être. Mm. dama ne koppar googu yooyu ñuy yooyu ñu dugal pour ASP. nañ ko yokk police. Ah ak gendarmerie ñu yokk recrutement bi. yokk recrutement bi foofu euh, kii bi euh, ma effectif bi yokku. nañu waxante dëgg di créer ay yii. mu nekk du sérieux. parce que ñooñu formation boobu ñu am bi am euh, armée bi am police ak gendarmerie moo gën a efficace moo gën a baax que formation yi dégg nga nañu yokk foofu nga man loolu laa gëm. Mm. lii waru fi woon ay kii lii affaire wu tapp man boog affaire wu tappale laa ko jëlee woon. Mm-hmm. mooy que nañu dem jël leen l' argent là xoolal fu mu nekk nii booy buggee ay ay ay mais bu ñu defee dans chaque quartier ñu euh, kii mu am ay muy am ay mu am ay. Euh, ay ronde ah ronde di am yo parce que boo gisee ronde yooyu mënul am parce que effectif day moyen yee doyul. loolu la nañu mun nañu ma ne ñu jox moyen la police jox moyen gendarmerie. Mhm. jox leen loolu ñoom ñu nekk ci biir di. sécuriser nit ñi. c'est ça Aliou Sow. Salma Fall yaa ngi wax waxu waxu waxu euh, Pape Khaly Niang. Ah, euh, euh, ce monsieur jusque l'année dernière ASP je crois que ASP amul utilité. li ñu waroon def mooy yokk alkaati yi. Ah, yokk policiers yi. renforcer la sécurité dans ce pays mettre les moyens dedans waruñu leen jëlal contrat sur sept ans koo mën a téye sept ans war nga ko mën a téye vingt wala vingt cinq ans pour mu sécuriser le sa dëkk ba pare mu am une meilleure formation à l'intérieur des forces de l'ordre que sont ou la police ou la et la police et et et, et, la gendarmerie je pense que ni c'était inutile foofu euh, écoutez moi je dire une chose daaw ASP Pape Xaale Niang boobu ngeen di wax ci avocat il avait dix-huit conseillers yu nekk ci wetam ñoo xam ne ils des rangs de ministres avec des salaires de ministres mhm. oui oui maa ko bu fekkee dafa am ku ko mu ñëw fii mu toog je vous dis Pape Alé Niang boobu il avait 18 conseillers ay colonel ay à la retraite yu kenn xamul ñoo nekkoon ci tam nekk ay conseillers avec rang de ministre rang de ministre j'entends bien mais salaire de ministre surtout donc buufu xaalis la woon pendant ce temps-là est-ce que xam ngeen ASP ñaata la ñuy par mois. moom. dama ko kaas. waaw c'est-à-dire waruñu woon leen gën a suufeel ñoom. parce que boo yor ay cinquante mille yu kenn xamul. ASP loolu lay gagné par mois xam nga loolu c'est c'est mais mais la mooy un ASP qui est toute la journée. mais xam nga lii dama euh, euh, euh, il faut qu'on arrête. lii liggéeyu ñu kuy liggéey doo defee nii. di jël ay ASP ASP xam nga mooy lan mooy équivalent police municipale. police municipale ci municipalité yi. lañ leen war a joxaay jàppaleen ci ay subventions ba ñoom ñuy am seen police municipale di rôle ci seen i biir dëkk en collaboration étroite avec les forces nationales mm-hmm. je pense que ni il faudrait que ces gens là apprennent à réfléchir mais war nga xam benaaw sama gars yi xamuñu dara ay cune lañu sept ans ngi nii ñii bu ñu paree fu ne dañ leen di am ñi ngi à 30 ans ASP bi ñu jël ans après à 40 ans ou 37 ans il ne pourra plus faire les ils n'ont pas su entrer après nga sànni ko fan ci àll bi mu dem nekk fan dem dem dem ci société yi de de force euh, euh, euh, exploiter encore ces gens là ay 24 heures la ñu nekk ñu leen jox par mois je pense que ce n'est pas comme ça que ça marche ne vous étonnez pas tant qu'il y a des crimes les gens sont frustrés dans ce pays vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre en plus de la crémière ce n'est pas possible il faut travailler et réfléchir mais dañuy toog di xalaat ñii xamoon nañ dañ fiy jóge bu ñu fa nekkee la ñu war ne au bout de deux ans bu ñu defee étude bi xool au niveau de cette agence là liggéey bi fan la toll ce que am na évolution est-ce que am na njëriñ mais bu boobaa ñu xam léegi nan lañ def ay orientation fast wax boobaa immédiatement ñu wut réfléchir ay solution xool ñi nan lañ def pour dugal leen dans les forces de l'ordre comme commencé nañ leen di intégrer parce que da dem fële léegi mais qu'est-ce qu'ils font ASP est-ce que war na sa carte loolu lu mu tudd. ah non c'est un exemple entre autres. mais ci biir kii bi pour légaliser ak yi demee noonu mooy seen liggéey wala ñu leen di yónni ci kaw entre deux troisième étage et je pense problème bu fekkee nañu bëgg sécuriser comme ni ngeen ko doon waxee les les comment dire euh, euh, euh, localités yi maires yi ak yu demee noonu les petites villes et les communes pour ça il faudrait ngeen jàppale xam nga c'est dommage bon c'est vrai que monsieur Guèye a raison dafa gàtt affaire bi parce que fii kenn mënu fi wax lépp lépp lu leer mais c'est une évidence que ni y une façon de sécuriser une commune maire bi mooy magistrat bi dafa am ay jumtuwaay yoo xam ne dañ ko ko war a jox mu ñu dugg ci détail pour mu liggéey mettre ces gens là dans des bonnes conditions tant qu'ils sont bien élus comme ça ñoom dinañ liggéey moo gën ñuy créer ASP di ko tas maire bi laaj benn ASP kii beneen maire bi laaj ñett et cetera et cetera c'est du travail mal fait il faudrait loolu yaa ngi def décentralisation mais réfléchir leen ci comment on fait nan ngeen di def pour jox gars yi de l'argent pour ñu liggéey jàppaleen état bi di siyee xaalis bi fi nekk tas ko jox ñi mu war a jox ku nekk proportionnellement à la densité de la population maire yi ñu liggéey ba pare ñu leen di surveiller par l' inspection générale d' état c' est possible di xam ndax li ñu leen jox ñu ngi koy dugal fi ñu ko war a dugal wala ndax investissement yooyu ñu def au niveau de ces communes am na solo wala amul solo yooyu c' est des contrôles et à a priori et a posteriori boo xam ne dañ ko war def ci liggéey yooyu mais il faut des gens pour faire quand on passe son temps à faire des des des ay yoo xam ne inutilement. Euh, wala faire des des des des des xaw ma con con conseil des ministres xaw ma lan ci ci ci ci ci département yi ci région yi. tout ça c'est du blabla ça ne marche pas comme ça il faut du concret boo defee dara tey semaine prochaine da nga war a xool li nga def wala décision yi nga joxe ndax contrôler nañ ko nga contrôler nga xool ndax décision yooyu jàll na wala jàllul est-ce qu'ils sont en train de faire leur boulot. yaa ngi dégg administration bi dañ leen di fay pour loolu faire travailler ces gens qui sont dans l'administration il faut des contrôles il faut que kiy mu taxaw il faut pas ngay xalaat ay politique il faut may ga ga pas xalaat kan laa war teg fan et cetera parce que sinon eh bien du ma mën sama nguur non il faut faire le travail bien comme il faut après c'est au peuple de décider euh, au terme de votre mandat mais ni ñuy defee nii ce n'est pas une bonne idée moi je vous dis Khali Niang il avait 18 conseillers ay colonel à la retraite la fa jël teg leen comme ay conseillers il leur donnait 3 4 millions de francs par mois est-ce que vous trouvez que c'est normal xaalis boobu fan lay jógee yi ñooy ñoo koy fay encore de l'argent et puis force de l'ordre ay police alkaati mais je vous mais <laughs> non Aliou Sall amul ASP de ay policiers la am ñu koy garder amul ASP ay policiers euh, euh, policiers police nationale ñu ñuy fay ñun ñoom ñoo waroon def beneen liggéey ñaari gendarme ñaari ñaari GMI groupement mobile d'intervention ñoo koy ñoo koy garder eh bien et ne soyez pas étonnés quand ça ne marche pas parce que ce sont ces petites injustices là que les gens voient dans ce pays et puis ils font des bêtises ces criminels là ces assassins là que vous voyez là man waxuma li ñu def baax na de loolu kenn xamul ni c'est de l'horreur tout le monde le sait waaye nan la ñu war a mën a def pour pour éviter tout ça autant autant que c'est possible éviter dégâts yi ñaaw yi ñuy gis ci dëkk bi les gens sont frustrés les gens sont sont fatigués les gens ont la haine ce n'est pas moi ma haine c'est l'injustice c'est vrai j'ai la haine parce que man mun naa liggéey et je yàlla dimbali mun naa gagner de l'argent ce n'est pas un problème ça mais je parle de ces gens-là ku nekk ak sa forme haine moi j'ai de voir les autres ont la haine de ne rien avoir dañuy judd duñu dañuy màgg duñu lekk duñu naan nekk ci ay problème amuñu jabar wala am ay problème ñu leen di couper seen électricité c'est ça la vérité dans ce pays là il faut oser le dire ASP ça ne sert à rien dañ ko war a dagg ñi nga xam ne war a jël dugal leen dans les forces de l'ordre former leen ñi def leen ay gendarme ñu def leen ay policiers liggéeyloo leen dëkk bi avancé ñu yokk force de l'ordre yi ñi nga xam ne mérité wuñu ñu leen di garder ñu bañ leen garder dugal leen ci dëkk bi ñu dem liggéey hmm. pour les populations mais pas pour les euh, euh, ay ay maires mais vous vous rendez compte mais chaque jour maa ngi koy yuxu ngeen ne yéen am ñaari ñaari policiers yu koy vous trouvez que c'est normal parce que chaque jour man maa ngi fay pour Aliou Sall pour ñu garder ko parce que alors que tout simplement c'est un simple maire de la République c'est pas normal bu leen étonné wu ngeen wax des mata macabre ba ki dem ba Khadija euh, euh, euh, comment elle s'appelle Khadija Diakhaté ne ma a des problèmes dans ce pays janvier bi baaxul janvier mooy janvier bu gën a bu a bu a bu a bu gën a ça aurait pu être en février ou en décembre. dëkk bi moo am problème. situation bi la y' a y' a ce chaos dans ce pays. continuer euh, foofu déjà man euh, problème bi moom mooy que ni c' si armée bi laa am problème man euh, su ñuy recruter ñu jël ay contingent bi nga xam ne dafay am benn 1000 wala je sais pas 1200 kii soldats ñu former leen wan leen ni ñuy jàng ni ñuy point point faible wan leen ni ñuy mën kiiweel arme ak yooyu yëpp. mais li ñu siy téye lu néew la par rapport ak li ñuy formé mais ñooñu ñoo ñuy bàyyi ñoo ñuy bàyyi ana ñu voilà ñoo ñu bàyyi ñoo yore arme yi ñoo xam arme ñoo mën a ñoo mën a mani c'est vrai mais da ngay xool bango il faut qu'on soit sérieux da ngay xool bango wala gendarmerie il faut qu'on soit sérieux nga xool ñaata euh, ci euh, ñaata ñoo ci année bi foofu li ñuy bàyyi def formation bi ñaata la ñuy bàyyi ñi <laughs> ñuy jël waaw loolu ñu def ASP bi nii duñ jël ay professionnels waaw léegi nag yow foofu non mais c'est que euh, non xam nga xam nga aussi gars yi mais xam nga ma pourtant ça me paraît simple mais ce sont des gens qui sont pas capables ce pays là ñi ko jiite depuis 30 ans mais xamuñu dara mais Abdoulaye Wade moo ci xawoon tane mais magoon la Abdoulaye Wade moo ci xawoon tane ci ay réflexion waaye ay sàcc rek ko waroon moom tamit li mu liggéey yëpp teg ko teg ko pour gars yi liggéey gars yi dañu ko jël ak yi moo ko téye ko seen i seen i seen i kër ak seen i njaboot c'est ça la vérité c'est que ces gens là ils auraient été bons ils se seraient développés on a bien vu la Tunisie on a bien vu la Tunisie on a bien vu les pays seen portable yi ngeen yor tey jii nii dafa am dëkk boo xam ne moo koy defar. dëkk di ko defar kooku dans les il y a 30 ans 40 ans 50 ans ils étaient au même niveau de développement que nous ay Corée du Sud. il faut oser dire la vérité ay Singapour les Malaisie là dëkk yooyu ñun ñoo tolloo niveau de développement je suis parti dans ces pays là dem Malaisie ngeen xool li fa c'est extraordinaire c'est le monde des musulmans demal ngeen xool ñooñu ni comment ils fonctionnent mais ces gens là en quoi ils se sont enrichis lu xoolal da du dara na leen rek la ñuy def mooy dañuy xaar jël nguur gi jéem ko seet ni ñu koy pàccoowee ba seen mandat jeex c' est comme ça qu'ils font ñi nga xam ne dañ leen contrôle sax ils se permettent de les récupérer jox leen ay responsabilités pendant ce temps là les hommes de vérité sont dans ce pays là on les ignore on les met à côté et c' est ça qui n' est pas normal dëkk bi ces gens ne sont pas contents les sénégalais ne sont pas contents Macky Sall il faut que nga xam ko gars yi nga li ngay def ni sa politique bi yi bëgguñu te boo continuer nii du dem fenn parce que ñi nekk ak yow les trois quarts de ceux qui sont avec vous ils ne se basent que sur leur propre denier loolu moo intéressé li nga leen di jox duñ la wax dëgg la preuve y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ce pays ñu waratuñ fi nekk ngeen euh, alors que defu leen bilan yi au début de votre premier mandat yaa ngi doogoon teg naan da ngay ces conseils là au niveau de sept ans pour faire quoi ana milliards yi nga waxoon nañ chaque région du Sénégal est ce que leeral nga ñu ko ana bilan yi ana këyit yi est ce que wan nga ko Sénégalais ak journalistes ñu lire ko jàng ko région bu nekk ñaata dafa def y' rien de tout ça parce que y' a des gens qui sont autour de vous et qui ne font pas leur boulot. C'est ça la vérité. C'est, que vous ne marchez pas, vous êtes là que vous, il faudrait que vous def seen liggéey Sénégalais dina fi jëlee parce que Sénégalais ñoo sonn. Mm. te naa leen wax dara xanaa ngeen ñëpp bañ wax mais sénégalais dinañ comprendre te doo leen am ndam ci li ngeen def lu dul ngeen liggéey ba sénégalais yëg ko on sent que ça va pas dans ce pays on le sent les gens sentent que c'est pas bien boo doxee ci tali bi xool embouteillage yi xool taalibé yi taalibé rey mais ce pays va mal ñëppay reyante ñëpp ñëpp tout le monde va mal mm-hmm. ku nekk am nga lu lay métti am ñoo xam ne nag am nañ xaalis mais am na tam lu leen métti mm-hmm. c'est vrai ñëpp am lu leen métti jamono ji ci dëkk bi. donc boo surprise bu mag a mag a mag moo ko nar a. jóg leen fi nag ana ñoom Penda Mbow Souleymane Jules Diop moom président Macky Sall. il faut que waxtu bi daf ñoo dab Aliou Sow il faut que ñu dem oh, ci l'exclusif euh, ñoom ñu def ci seen une extrêmement coûteux et carrément inutile ces ministres maires ci même même lancé bi la ces ministres maires députés DG et PCA qui exposent et tuent Macky non seulement ils sont coûteux mais ils sont inutiles ñu jël ki nga xamante nii mooy Mansour Faye Euh, Sall mi nga doon wax léegi. Ah. di policiers yi di garder. Ah. Euh, borom Prodac Mambay Niang. ak euh, yaa xam xaritu xaritu Salma. ñoom ñu ah, voilà. voilà des gens comme des gens comme ça resté six ans à la poste. Mm-hmm. ou cinq ans à la poste. musul génne état état financier yi. Mm-hmm. la demee ñu jox ko PCA léegi. ngi dégg ces gens sont là. Mm-hmm. ils sont là yaa ngi leen di cité ay ñoom Aliou Sall man la koy wax léegi. Aliou Sall il s'est milliardisé. milliardisé. fan la jëlee ay milliards lan la liggéey ban société la créé ba am ay milliards wala yan émolument la am dans le cadre de ces commissions ba am ay milliards fan la ko def légalement ana ana mais mais at day dee sax nga nga def say déclaration de patrimoine wala déclaration d'impôt impôt sur le revenu da mm-hmm. war a déclarer mm-hmm. li nga gagné ci at bi yëpp yow Salma Fall bu wee at bi dee dañ naan Salma Fall bon il ne travaille pas parce que gis na at waroon na dee ñu ne yow maxu defoo sa déclaration de revenu de waaye Sénégal kan moo fi def de revenu da wax leen nag ku nekk nga cible ko sénégalais bu nekk nga xam ku nekk ñaata lay jar ak lan lay valoir hmm. c'est a deux solutions on va vous laisser partir et que vous n'êtes pas capable en réalité de le faire mooy kan Sénégal kenn xamul di génn kenn amul y a aucune traçabilité euh, ci être sénégalais et même les étrangers qui viennent chez nous kenn xamul ban kër kan moom moom lan hmm. dëkk boo xam ne kenn xamul kan mooy kan kenn xamul kan moom moom lan parce que il n'y a que de la tricherie en complicité avec une partie de de de de, de, de des impôts et domaines et c'est ça qui n'est pas normal regardez ce qui s'est passé là 2017 Salma Ibrahima Fall fii Tobago Almadi ak Tobago Yoff Macky Sall signé décret pour que gars yi récupérer ay seen terrain ñu dagg ko normalement Mamour Diallo vous savez ce qu'il a fait mm-hmm. eh bien dafa def ay doublons léegi mam boo jaww yow ñëw nga yow ñëw nga ba léegi mënoo ci décider parce que xam nga li xew ci biir kayit yooyu mënuma dugg ci détails yi fii yow xam nga li xew ci kayit yooyu léegi il faut rek nga décider parce que am na ñoo xam ne jot nañu seen terrain mais seen terrain mënoo leen mënoo leen jox euh, euh, autorisation de construire xam nga lu tax parce que boo leen ko joxee am na keneen ku am la même chose donc même terrain bi ñaari nit mën nañ ko bokk boo saaganee sax ñett léegi nag da ngeen di jéem a réfléchir ci ay solution pour xool une ñi nga xam ne dafa fi fi am ay doublon nan ngeen ñu def pour wutal ay yeneen terrain euh, wut wut ay solution pour que kenn jël benn terrain keneen keneen ñu jéem ko jox leneen c'est ça le pays et c'est comme ça qu'ils sont enrichis moo tax affaire u affaire u 94 milliards yi doo leen ci mës a wax ana El Hadj Diouf yow sa làmmiñ bu rëy da nga waxoon rek boo leen paree rek assemblée nationale da ngay porter plainte doo leen waxoon bu assemblée nationale paree seen commission da ngeen toll je je je je raffole de voir ce qui se passe je raffole d'entendre d'être au tribunal puisque session ouverte la ñu xool exactement comment ils vont réagir 46 milliards lettre de garantie boobu anamu ci banque ba tout ça ngeen ne problème amul affaire Prodac amul ngeen ñu ngi leen di jox ay ndombal tànk ba tey pendant ce temps-là les valeureux sénégalais sont là en train de donner leurs avis de d'essayer de, réfléchir sur des solutions pour ce pays ça fait ans HCCT Aminata Mbengue je vous aime bien mais vous recevez 50 millions autant que Moustapha Niasse par mois ngay recevoir ci fonds politique sans compter ces 7 milliards de budget Assemblée nationale vous en avez pour 18 milliards ngeen am de de de de budget Moustapha Niasse vous avez 50 milliards vous avez 50 millions de de de euh, comme comme avez nga jox ko di ko fay salaire bu la neex ci budget Assemblée nationale. suñu loolu moo tax du ñu mës a jël un opposant di liggéey ak ñoom gis nga dañuy jël ñi nga xamante ne ñoo bokk ak ñoom parti pour après bu ñu fi jógee kii ñëw dina mën couvrir seen dégâts yi nga xamante ne de de de Prodac ki nga xamante ne moo di Mamina Daffé moo fa nekkoon mais Macky Sall jëlee na ko fa mais keneen kam fa takit il est de l'APR bokk ci maire. donc euh, c'est ah. normal c'est parce que c'est le pays qui est comme ça parce que euh, en réalité gis ngeen xam nga oui dañuy wax oui tubaab yi ay esclavagistes lañ ils nous ont esclavagisés pendant 300 ans et cetera et cetera mais yéen yéen yaa leen raw yéen seen seen mbokk yi ngeen koy def yen yéen yéen yéen yéen seen mbokk yi ngeen di rendi chaque jour. mais eh, vous pensez quoi ay rey nii rendi ki rendi noonu rendi mais je crois que les hommes politiques là nekkuñu di rendi sénégalais ñoom ñoo leen xiifloo hmm. la mooy rendi ngeen defee rey nit mooy jël ko jël paaka rendi ko wala jam ko paaka mu dee hmm. mais ñi dañuy mujjee dee ñi feebar fajuwuñu mais yéen yaa leen def boo leen te ñoom ñu dëkk si dëkk bi yéen ngeen di dawal ay oto 90 millions ay quatre-vingt-dix millions bàyyi leen ñuy feebar doo leen jox ay garab doo leen mën ñoom du ñu mën a faju ku si am cancer doo faju ku si am euh, euh, euh, seen feebar yooyu ñu naan la kenn xamul doo doo mën a doo mën a faj kenn mënul defal kii boobu nu mu tudd quand vous ko def yéen ñu lay bàyyi lu ñu nekk ci nguur gi di dawal ay un pays où un DG peut gagner 15 millions de francs CFA Sénégal boo xam ne fatka Euh, DG day gagné 15 millions de francs CFA xam nga lan mooy 15 millions de francs CFA par mois mooy 500 000 francs par jour. am na kuy liggéey ba weer bi dee du ko am di liggéey 8 heures ba 20 heures. samedi ba lundi ba samedi. ngay gis ku nekk DG détourné ay milliards ñu def la ministre de l'enseignement supérieur. mais ana ana ana ana am an yow ana nga yow an yow Macky la teg yow dañu waxoon ni kenn waratul la teg ci fonction publique loolu la bi waxoon. yow kenn waratul woon teg ci fonction publique yow yow bi ñu gisee dégâts yi nga def yow Mamour Diallo ñu ne kenn du la tegati fen dañ la war a interdire loolu liggéey bi waaye xoolal ma li xew ci dëkk bi ngeen ne loolu kenn du ko wax ngeen ne yéen euh, y a des Khadija ma di je, je la voyais avant-hier étonnée hein, dans, mm. parce que j'étais en face d'elle mm. man koy xool mi ni mi mu ne non man sam man man man euh, euh, bi ak janvier bi man daal mooy janvier bu gën a bon ci sama janvier àdduna bi et cetera mm. parce que xale nga woon moo tax bi nga màggee ngay gën a seetlu te demal di gën a gis gis nga rey du kay jam paaka kese am na ñoo xam ne ñu leen di rey chaque jour mm-hmm. xëy na sax bu ñu la jamee paaka wala ñu fettal la nga dee tout suite xëy na yàlla dina lay rey di la dañ lay toroxal dee di la xiifloo di la feebarloo de duñ nangu di la faj pendant la temps là ñoom ñu ne ñoom ñi ngi si nguur gi ñoom ñoo nekk ci nguur gi ñoo war a yor destin wu Sénégal ñoom la ñu war a mettre ci yenn conditions yi te gis nañ ci conditions yi ñuy dëkk mais ngeen yaakaar directeur général nation société nationale ak ministre société nationale nga def ne am droit di am le même confort que ministre suédois que ministre Danemark danois que ministre euh, français que ministre espagnol alors que bokkuñu ci même niveau de développement quand le pays est pauvre Fatou dëkk du pauvre mais ñëpp dañu war a dañu war a euh, dañu war a assumer pauvreté bi ba lépp baax Sénégal dañuy gis un ils vont dans les séminaires comme ils veulent <laughs> aux frais du contribuable sénégalais pour ay séminaires yoo xam ne amul benn njëriñ puisque amul retour d'investissement mmh. puisque quand même dëkk bi ça fait 40 ans que vous faites la même chose ça n'a jamais marché mmh. je vous ai dit que Macky qui part en France aller-retour pendant trois jours il paye millions mmh. kan moo koy fay Fatka ak Aline Sow France ñetti fan 500 millions lay fay mais tant que tant que sa marche pour euh, rek Aliou Aliou Sow lu leen neex la ñuy def parce que def lu il faut def lu leen neex we weesuwul bërki démboo njaay yëpp euh, rek fan yi yëpp ñu ngi koy wax euh, ki nga xamante mooy mooy Yakham Mbaye licencier un journaliste sous prétexte ah que ni kooku mu ngi noonu nekk ci yenn plateau télévisé di wax li askan bi di dund jafe-jafe yi askan bi di dund après ñu licencier ko ci koo xamante yow CDI sax nga nga amoon fële ca ca journal Le Soleil loolu je pense que yabaate weesu ko bah je sais pas yaa xam xamul tax nga def loolu ce serait bien que euh, euh vous vous expliquiez mm -hmm. par rapport à ça mm -hmm. parce que un monsieur voilà un monsieur qui est journaliste qui est là avant vous mm -hmm. avant yow ñu lay Macky Sall di la nommer mm-hmm. directeur général mm-hmm. eh ben ce monsieur qui est sénégalais mm-hmm. de surcroît un journaliste te xam nañ li kuy luy liggéey journaliste bu demee war a joxe xalaatam ci yeneen plateau dans ce pays là je pense que ni bu fekkee ni dafa am obligation de réserve qu'il n'a pas respecté il faudrait euh, nga wax ak sénégalais yi nga wax leen ko parce que doomu jàmbur la day liggéey et puis c'est un intellectuel il a écrit un bouquin euh, assez explosif quand même ce monsieur-là sur le mannequinat au Sénégal quand même kooku mi ngi bëgg am yu muy wane c'est un journaliste d'investigation bu fekkee ni dafa am loo def te ñaaw na parce que dafa waroon am obli parce que je sais pas tout de suite dama ne yaa xam bu ñemee def lii rek xëy na obligation de réserve il faut ñu nga leeral ñu parce que ñun kayit yi duñ ko yor. xam nga fii dafa neexul ndeysaan Salma. parce que man li nga tàmm di xaw moom il s'est expliqué nee na ko texte yi nga xamante ni mu ngi koy bind foofu ci soleil. mu ngi koy def dans les règles de l'art mhm. mais après euh, su paree li nga xamante ni moo di foofu il est il est pas obligé ko invité yenn ci plateau télévisé yi mu bañ a dem dina mm-hmm. dem il donne son avis comme un sénégalais comme un journaliste boo xamante dafa am ay di ko di ko def et mm-hmm. ñu ngi koy masawu quoi parce que man affaire bi man daf ma touché mais et puis warul yeewu sax warul mm-hmm. mais mais mais xanaa am na ay ba yeewul suba teel dàq nit mais balaa ngaa dàq nit sa contrat en général am na ay avertissement. fii avertir nañ ko. Euh, euh, am na am na avertissement waxoon nañ ko ko. am na avertissement est-ce que gars yi recevoir nañ ko avant ñu koy dàq. non est-ce que am na faute faute grave faute lourde yooyu dafa war a am. certainement dinaa ko invité sax yooyu c'est dommage mais mais ce serait bien. Mm-hmm. seulement qu'il vienne ici. Mm-hmm. parce que man toujours damay ragal di gaawantu. je sais que ni mm-hmm. quelqu'un qui a un CDI. qui a une ancienneté. bu fekkee ni contrat bi amul benn obligation de réserve. boo xam ne dañ ko ko observé loo ci biir contrat boobu il est évident que ni. waruñu ko dàq mhm. bu fekkee ne nag am na obligation de réserve yaa xam c'est à vous de vous exprimer il faudrait que yow yaa DG bi ci moom tam kilifa la xëy na yow yaay kilifaam mais moom tam kilifa la c'est un intellectuel loolu ngeen ko def bu fekkee ni jaarul yoon wala daf da ko wax dafa am obligation de de de réserve boo xam ne dafa imposer wu sur sa personne lui en tant que employé du quotidien mhm. eh ben je crois que euh, bu fekkee ni loolu amul li ngay def baaxul bu fekkee ni am na nag jógal nga expliquer ko fii sénégalais yi xam parce que quand même c'est un monsieur qui est là depuis un certain nombre de temps et vous n'avez aucunement le droit si encore une fois euh, amul benn obligation de réserve et eh bien en euh, bu boobaa amoo droit def li nga def mais nag moytul yaa xam xaw ma ndax da ngaa juum xaw ma ndax juumoo mm-hmm. expliquez vous euh, Salma c'est très difficile que je m'avance sur ce genre de choses là mais euh, parce que parce am occasion dañuy am occasion bu ñëw expliquer ce qui s'est réellement passé xam naa dañuy jeexalee rek Aliou Sow ak l'observateur ñoom ñi ngi def ci seen une xam nga ndeysaan ñi ngay wax léegi bu ñu xooloon ci ñii amaana duñu ñu def duñu defee nii ah la vie après le pouvoir l'étonnante reconversion des ex de Wade ñu ngi ci def ñoom Awa Diop Abdoulaye Diop ay Ndeye Khady Diouf ñii man sax dama leen fàtte woon en fait. waaw Ndeye Khady Diouf moom mooy mooy doomu Léna Fall Diagne moom lañ tëjoon ci kaso bi. te il fut des temps ñoo fi tegoon loxo teg fi tànk. mais loolu moo tax ma doon bët ki dem bi ma waxee ba ne leen ana ñoom Karim Wade ana ñoom diw ak diw ak diw. Mhm. Euh, gis nga bon y en a qui résistent c'est dommage mais ces ex là ñi ngi fi nii. Mhm. Euh, bon c'est vrai que am na ñoo xam ne am nañu liggéey am na ñoo xam ne politique kese moo doon seen liggéey. Mhm. peut-être aussi ñu ngi leen di jàppale ci suuf parce que des fois doo xam. mais am na ñoo xam ne aussi ñi ngi jéem a tenir le coup. continuer à résister pour pour être dans le landerneau politique sénégalais en profitant de certaines répondre je pense que ni ñooñu la ñu war a surtout dénoncer euh, l'observateur bravo hein dans ce que vous faites mm-hmm. mais euh, gën leen leeral aussi euh, ñi ñi nga xam ne dañu bëgg a résister et qui ne servent plus à rien parce qu'il y a des gens qui étaient dans les régimes précédents comme ay ñoom régime Abdoulaye Wade ak yooyu mais qui veulent continuer à résister ñoom Sada Ndiaye loi Sada Ndiaye dégg ngeen ko pourtant mi ngi si Ablaye mi ngi si Macky Sall léegi ak ñoom euh, Serigne Mbacké Ndiaye dégg ngeen ngeen wax yéen ñaa leen koy woy léegi inimix euh, ces gens comme Souleymane Ndéné Ndiaye qui sont là qui veulent tenir alors que ils ne servent plus à grand chose moi j'aurais voulu à sa place euh, qu'on mette quelqu'un d'autre mm-hmm. Souleymane Ndéné Ndiaye amatul njëriñ Sénégal mm-hmm. Souleymane Ndiaye lan la lan la la war a mën a apporter yow yow Macky Sall yow yow yow yow yow Modou Diagne Fada lan la la mën a apporter ba nga koy jox direction mais c'est normal Sonacos du ñu mën a am mu doy parce que kooku koo xool doo crédible bu demee pour wut pour wut gerte gi pour gerte bu doy ils ont besoin de je pas combien de euh, soixante dix pour cent moo leen manqué ci tonnage bi ñu soxla ci wàllum gerte. parce que chinois yóbbu nañu lépp mais c'est normal kii boo ko mais kii bu demee taxaw kan lay waxal ak fi ak jaar-jaaraam yëpp juste parce que. kii kooku noonu moom moo bëggoon remplacer euh, donc Abdoulaye Wade nekk patron wu patron wu parti démocratique sénégalais finalement li ñu ko doon soupçonné jaay Fada qu'est-ce qui ba dem ba dawal tuuti mais gis nga fu mu mujjee ci sa ginnaaw mais il fallait mu def loolu pour nga mën ko jox Sonacos. Mhm. jox ko un poste de responsabilité parce que dafa sonnoon nag parce que sept ans daf ko def chômage parce que ñoom du ñu liggéey amuñu leneen lu ñu def dañuy toog croiser les bras di seet yan stratagème la ñu mën a teg pour revenir au pouvoir à vos côtés pourtant ñooñu bu seen pexe bu seen pexe euh, juboon kon yow doo nekk président yow ma Sall mhm. kon Ablaye Wade mooy amaat troisième mandat mhm. muy ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye non Souleymane Ndéné Ndiaye mm-hmm. nee na nee na nee nee na ku transhumé dañ ko war a rey kooku kooku journaliste war na ko woowaat ci télé di ko laaj kooku journaliste war na ko woowaat di ko ci télé di ko laaj lan mooy sa xalaat ci dëkk bi sama gars yi journaliste dama leen di mere des fois mm-hmm. parce que man ah man man man bu ma toogee Souleymane Ndéné Ndiaye mm-hmm. man man xaw ma lan laa koy wax mënuma toujours di ko répéter exactement la même chose parce que fu ma ko xoolee rek maa ngi xalaat loolu ak ni mu doon waxee ak xadaar bi mu doon waxee mu ne moom ku dellu ku dem ci Macky Sall dañ ko war a dañ ko neen neen neen kenn du ko posté ne mu dee ndànk de mm-hmm. ah wala yooyu neen dañ ko war a jàkkaar mm-hmm. nee na kenn du ko posté mu dee ndànk mm-hmm. neen dañ ko war a fetal foofu la toll woon ce monsieur là moom moo nekk tey jii nii nekk PCA nekk ci ko côté nekk PCA Air Sénégal SA nekk ci wetu Macky Sall ñu koy jox euh, euh, muy dund confortablement comme ni mu daan dundee pourtant ce sont des gens qui sont incapables monsieur le président de la république ñooñu mënuñu leen apporter dara. am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ci dëkk bi ak diaspora bi am ay kattan am am xam-xam waroon mën a liggéeyal seen dëkk parce que dëkk bi nag ñun ñoo ko bokk. Mhm. président nga waaye da ngay dem. Mhm. keneen dina ñëw. waroon nga mën a liggéeyal des gens qui sont dans l'opposition et qui seraient à même capables de travailler ou d'apporter leurs compétences ci réew mi. Mhm. waaye pourtant yow ñooñu nga préféré mais c'est bien faites comme vous voulez yow ñu fal comme ni ko sëñ bi doon waxee rek Mansour Sy Djamil bis du ñàkk en attendant nag on va en parler pour continuer à vous alerter pour que a def comme Abdou Diouf génn ci nguur gi naan je ne savais pas je n'étais pas au courant parce que yow vous devriez être au courant mhm. vous aviez été 15 ans aux côtés d' Abdoulaye Wade Petrosen. poste de responsabilité nga am itinéraire bi nga am yëpp yëpp ministre de l' président de l' nationale. Mm-hmm. yow yàlla li mu la jox da nga waroon ñëw rek dóor mu mm-hmm. calcul bu fekk ce qui ce qui va dans l' strict mm-hmm. des Sénégalais. pourtant vous ne l'avez pas fait vous êtes dans des calculs des personnes qui sont à côté de vous qui ne sont là juste que pour récupérer certaines baignées. mais moom xam na loolu sax xam na loolu sax Aliou parce que ñooñu noonu ñu ngi fi lim yëpp muy waa PDS yooyu moom Macky Sall nekkandoo woon na ak ak ñoom xam na ni tey jii ñooñu Abdoulaye quoi qu'on puisse dire président Abdoulaye Wade moo leen créé moo leen tabax moo leen moo leen. def tekkiwuñu dara ñoom waaw tekkiwuñu dara ba leen président tabaxee léegi après ñoom ñu ñëw. mu ñëw daal di leen jëlaat tegaat leen si côté am dafa mel ni benn genre genre ñaawalaate genre kókkali. ñi ngi xam euh, Fatou parce que ñu ngi ñuy xool di seetaan di dégg di xool ni gars di def sénégalais ñu teg seen bët. ñu ngi koy wax chaque jour. di leen di ko rappeler sénégalais yi ndax bis dina jot ay élection dina am. Mhm. dama ne il faudrait que moom qu'il se revive. Mhm. parce que il reste quatre ans. ndax may wax moom ne. Mhm. parce que en réalité dama bëgg sauver sénégalais. da nga ko parce que Sénégalais ñoo sonn parce que on en voit des gens qui souffrent dans ça. Mhm. Fatou fii gars yi boo amul xaalis boo feebaree. Euh, man quand je pense que ngay dee Fatou est-ce que vous savez quoi man bi ma démissionné sama liggéey France mhm. léegi mu yàgg mais ba léegi maa ngi bénéficié wu de la sécurité sociale et de la mutuelle française mhm. pendant dix ans bu ma feebaree dañ may faj. su su su su su jaree su jaree euh, loolu nu mu tudd euh, évacuation ñoom ñoo koy def. ak seeni avion bopp yéen ngeen ne da ngeen di julli mhm. yéen ngeen ne da ngeen di woor yéen ngeen ne da ngeen gëm yàlla yéen ngeen ne am ngeen mën yërmande yéen yéen ngeen ñu leen di xutba chaque ajuma xutba amul leen benn njëriñ mhm. ñu leen di wax chaque jour muy am ay cérémonie religieuse ngeen di ci dem mais ba léegi seen yaram dawul boo leen génne dugg ngeen seen i kat-kat tegle ngeen seen i seen grand boobu dem ngeen seen yoon en tout cas li ñuy wax chaque jour rek lu dul nguuru euh, suñu borom rek day jeex nguuru suñu borom rek moo dul jeex Aliou Sow waxtu bi dab nañu mais heureusement qu'on a eu temps de waxtaan ci sujet yu bëree bëri ñu ngi lay jaajëfal jox la rendez-vous demain incha allah ci kattanu yàlla avec euh, votre autorisation bien sûr d' euh, ko annoncé woon tey si suba El Hadj Keita waroon nekk sa invité mais jusque là gisuñu ko te temps bi jeex na nga wax ci rek. voilà donc excusez wu de façon woo na ma y' a 40 minutes. ni ma mi ngi si embouteillage bi donc ma ne ko bu ñëwee na yéeg. voilà mais yegg siwul te heure la direct la mhm. aléa yi moom loolu la ñu ngi mhm. si jéggalu euh, les téléspectateurs mhm. ak ñi nga xam ne vraiment ay fansam lañ doon ko xaar euh, xam naa ne incha allah beneen yoon rek et que certainement bu ñëwee également daañu wàcc naturellement comme ni ñu koy defee rek si Far FM 93 point 6 ànd ak moom si rajo bi euh, pour ñi nga xam bëgg nañ ko déglu wala aussi tamit découvrir li nga xam ne également